asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu suñu mbokku internet yi suñu mbokku téléspectateur yu TMS TV ñi ngi amati mbégte di leen ziar di ànd ak yéen tey ci samdi di 13 mars atum 2021 ci seen émission grand reportage ñu koy amalee nag comme ni ñu amee habitude di ko def fii ci clinique Alaaji mu lay Sow di ko ziar bu baax a baax alors grand reportage nag bés bu ne nii rek lay demee saa su bu. 15 heures jotee fii ci clinique bi ngeen gis ci sama ginnaaw mbooloo mu takkoo takku ñoo fi ne ma tey ci caméraman bi nag euh, di sëñ Youssou euh, ñu fas yéene nag dugg ci biir daal di leen amal waxtaan bu am solo kon Youssou dañu ne coow daal di dugg ci biir. ñu lay ziar. ñu ngi delloo ziar. alors ñu bëggoon xam turbe ak sant bi. man Seexu laa tudd sant Seck. ñu buggoon xam lan mooy seen teewaay fii ci kër gi. waaw suñu teewaay fii suñu mag ju jigéen moo ko waral ndax dafa am fan yi ci ginnaaw lu ko arriver dal ko yàlla dogal jëkkëram neewu fi jëkkëram nag moo insister pour ñu indi ko fii ndax jëkkëram mi ngi Espagne benn xaritam boo xam te ni jabaram comme li ko dal moo ko daloon mm, yàlla def mu fajoo fii moo tax moom tamit mu insisté nii ñu indi ko fii loolu tax ñu indi ko fii. yéen ngeen jóge Kër Massar. mos ngeen ñëw fii. non non c'est la première fois ñu ñëw fi alors bi ngeen ñëwee fii nan ngeen gisee organisation kër gi. waaw ah, wax dëgg yàlla gis nañ fi organisation bu jaar yoon wax dëgg yàlla gis nañ fi organisation bu jaar yoon. di ngeen di faral di seetaan ay vidéo Thierno Moule Sow. waaw man avant ma fee ñëw nag wax dëgg yàlla daan naa ko seetaan YouTube waaw daan naa daan naa ko seetaan YouTube wax dëgg yàlla. alors li nga jot seetaan lan nga ñu mën a wax ci sëriñ bi. ah li ma jot seetaan lu ma daan gis la nii rek mais tey teew naa tunga ne du teew ñu nataal man am bu kiiwee ma gis li ma daan gis comme li ma daan gis ci vidéo yi rek ma gis loolu li ma daan gis ci vidéo yi moom wax dëgg yàlla amul benn werante moom. ñu lay ziar. maa ngi lay fay. alors ñu bëggoon xam tur bi ak sant bi. lan mooy sa teewaay fii ci kër gi. suma teewaay de mooy dama feebar feebar bu yàgg waaw léegi damaa ko doon wax suma bàjjen mu ne ma da day seetaan Thierno Moulay Sow ma ko xanaa lu mu dee faj mu ne ma daf dee faj ngalaw dafay faj seytaane dafay faj rek mu ne ma te danga ma dee comprimé na sa yaram ma ne ko waaw mu ne ma demal foofu si la ma si laa ko wax fan man xaw ma fu mu nekk de mu ne ma danga dee seetaan finam bi. youtube am bi. vidéo am ko déedéet mu ne ma xaaral seen la ko si la ma ko seen mu ma su ma la ko seenee soo fa demee li nga compilé sa yaram bi yëpp dina bàyyi ma ne ko ah ma ne ko waa seen ma ko si la ma ko seen nag bi ma ko seenee bu suma jëkkër ñëwee ma woon ko ko. kii mooy sa jëkkër. waaw ma ne ko mu ne ma ah lii de mënuloo ko weddi parce que vidéo bi gis nga ko. waaye nag bu la su dee yàlla boole na laa moom na xam nga am nga price ñaata la ma ne ko ma ko de waaye su ma demul du ma xam. léegi si laa jël Thierno Moulay Sow numéro bi ci biir tub bi ma kool ko ma ko kole ma am sec bi ma am sec bi nii mu ne ma mu expliqué ma mbeeda bi fi may wàcc ak fi may ñëw si laa ko suma jëkkër suma jëkkër ne ma léegi nooy demee te am xamuloo prix bi ma ne ko su ma demul du xam foog ma dem ma door a xam ma mun a xam waaye su ma toogee fii duma xam prix so moo loolu nag moo tax ma ñëw. fan ngeen wéri ngara yooni costa route bi. xam naa xam naa wéri ngara. waaw foofu laa jógee. alors mas ngeen ñëw fii. mosuma ñëw fii. Euh, nan ngeen gisee kër gi organisation bi. baax na trop óolu naa ko tamit soo gisee ma gën a ñëw bugg a nekk suma yaram mu toppatoo ma ko moo tax ma gën a ñëw ma ne xaaral ma ñëw parce que suma yaram ni mel neexuma damay toog léegi léegi am sentiment yoo xam ne du neex. oto naa a xaar bi ngay faral di seetaan vidéo sëriñ bi waaw mën a commenter ci sëriñ bi waaw ah, man de góom naa ko man parce que gis naa li tam ma góom gis naa parce que man fu nekkat laa dem amul ma fu ma demul dem naa ba Casamance fu ne dem naa fa dem di seet ay sëriñ waaw pour suma yaram rek mais ba léegi amuloo ci tan aw ci benn am feebar bi am na fukki at ak juróom benn aw ci benn dara moo tax ma ne xaar ma ñëw fii seet. ñu ngi ziar. maa leen dellu ziar. alors kii sa soxna la. defe naa dégg nga li mu wax léegi. lan nga ñu ci mën a wax. Ah, li moom moom dëgg la ndax moom euh, dafa am jamono daal mu ne ma bàjjenam bi nekk Angleterre daal moom moo ko wax benn ci la ma wan bi ñu seetaan ko mu ne ko ah, waaw loolu moom dëgg la ndax fajkat moom bëri nañu waaye te wuute waaye kii moom ah, mbir moom leeral nañ waaw bu soobee yàlla. Ah, dinañ jéem a préparé dem foofu ndax euh, foo xam ne xam price beeg yooyu daal foo nga préparé ko waaw léegi nag barke barke démb dama wàcc rek mu ne ma suba nga gunge Sénégal ma ne ko lu xew ma ne ma dem ci Thierno Moule ma ne ko waaw doo ma ne su ma ko wàccee du ma dem ndax saa yu ma wàccee sama yaram daaneel ma ma ne ko waaw baax na ci lañ préparé daal xëy fajar départ ñëw ma ne ko Cambérène euh, dëkkoon naa boor indi kii unité 3 ci cinéma bi. Ah, dëkkoon nga fi. waaw ah, dëkkoon naa fi waaw waaye nag côté bi moom dama naa romb nekk oto mais miinu ma fi lool waaw dem na balaa ñuy trouvé fii xaw nañu sonn na mais ndeke moom place bi moom macha allah jafewul xam noonu. yow yaa ngi fan veli nga ràcc. man maa ngi foofu waaw bon man euh, entrepreneur laa quoi damay yor ay daal damay wër fu ne waaw mais temps yii moom maa ngi nekk Gambie. Gambie nga wala Sénégalais. laa maa ngi dëkk fii côté Diass rek aéroport Diass fii. dem ma sax dama ko bàyyi fii ma dem kër ga waaw ci suba laa jëw fekk ko fii ma ne ko nag sëriñ bi ñëwagul ma ne ñu lay xam tur bi ak sant bi. Ah, Ndeye Mati Diop. ngeen jóge Passen. ban unité. unité 10. Ah, ana Modou Lo. Modou Lo mu ngi ah. euh, ñu bëggoon xam lan mooy seen teewaay fii ci kër gi. Ah, ñëw si ceen Moule Sow rek dama ko seetaan su kii bi youtube bi foofu laa seetaan waaw ma ñëw man nag fu ma jaaroon moo bari tamit ñu lekkoon tamit sama xaalis moo bari moo tax man il faut ma ñëw fii Thierno Moule Sow xam naa moom dina ma jàppale. dafa am lekk sa xaalis quoi. fu ma jaar fu bari kay. lekk ñu ngi fii Sénégal. waaw ñu fii Sénégal. <coughs> alors mas ngeen ñëw fii. déedéet maa ngi fi soog a ñëw. nan nga gisee organisation kër gi bi nga ñëwee. ah rafet na torop macha allah. Mhm. Euh, yaa ngi faral di seetaan ay video vidéo Thierno Moule Sow. waaw dama koy seetaan kay. lan nga ñu mën a wax ci sëriñ bi. Hmm? ah sëriñ bi moom macha allah mën na lu muy mën mën na faj loolu moo tax man ma am fit ñëw fii. Mhm. ñu ngi lay ziar. maa ngi delloo ziar. di xam tur bi ak sant bi. ummi la sant Seck. lu mel ni xaaru sax ñu jox la kàddu am na loo bëgg a wax. waaw waaw li ma bëgg a wax mooy ndigal moo ma fi indi muy sama ndigalu borom kër sax si ndigal wéy ndigal jëf si ndigal loolu kese moo ma fi indi sama kàddu la tuuti lay doon te bëriwul lu wax du bëri ndigal kese moo ma fi indi muy sama ndigalu borom kër. loolu kese moo ma fi indi mu ne ma jugal dem faju ma dégg am ne jug maa ngi jug dem faju loolu kese moo ma fi indi waaw dëgëranteewu ma moom bopp loolu kese moo ma fi indi leneen andiwu ma fi. mas nga ñëw fii. bi mooy première fois ma ñëw fii. yow fan nga jóge man maa ngi jógee Kër masaar maa ngi jógee Kër masaar alors nan nga xamee sëriñ bi ba ñëw fi. nan laa ko xamee ah am na un jour de ma nekk ci benn ngénte sama benn xarit di ma wan ay vidéo ne ma kii mooy sëriñ Thierno Moulay Sow di ma ko wan daal di ma wan ay vidéo daal loolu daal mas na ma arrivé ci moom ndekete yàlla dina defa defa def ma toog ba ñëw ëttam lii daal ma sama ma moom li may wax bu neexoon yàlla du ma yegg wax bi du yegg. nii daal mas na ma moom ma nekkoon ci benn xew kenn ku jigéen di ma ko wan daal. ni ma ngay faral di seetaan ay vidéo Thierno Moule Sow. non non boobu la boobu laa ko mujjee seetaan boobu la njëkkee ñaar vidéo la ma ci wanoon boobu ñu ci première boobu mooy dernière fois bu ma ko masee seetaan xanaa bi mooy troisième fois ma ñëw fii ba ci ëttam. fii daan nga dem ci ma feebar dem ñaan lu ñu faj ma affaire yooyu feebar ak faju ànd hmm. waaw mais fii moom première baa ngi. première fois baa ngi ma ñëw fii te première fois laa demoon si xew kenn rek dama wax ay waxam léegi terminé loolu rek laa mën a wax. ñu ngi lay ziar. waaw ah, ñu ngi lay delloo ziar sëñ bi. ñu bëggoon xam tur bi ak sant bi. waaw man maa ngi tudd Djibi Dia dëkk am maa ngi wax ci Mbour fële. ñu bëggoon xam lan mooy seen tànk fii ci kër gi. waaw kii sama rakk papa la dafa feebar jógee Mauritanie ñëw fii loolu mooy seen tànk fii quoi loolu moo waral ñëw bi fii quoi. mas ngeen ñëw fii ci kër gi. man mos naa fee ñëw man. man mos naa fee ñëw. mooy yàgg na CEDEAO bu mu defoon fële ñëwoon naa fi boobu mooy bi amoon fële. mooy luuma BCEAO. Ah, luuma waaw boobu laa ñëwoon fii fee ñëw ko yow di ngay faral di seetaan vidéo Thierno Moule Sow. man mosuma tëdd guddi seetaan ma ko moom moom laay bëggee moom laay seetaan chaque jour chaque jour laa la wax. lan nga ñu mën a wax ci vidéo sëñ bi ngay seetaan. vidéo yi kay kéemaane rek kéemaane trop vidéo yi moom boo seetaan moom vraiment doy na waar quoi moom laay seetaan chaque jour mosuma tëdd. guddi wala suba ba ngoon seetaan moom vidéo yi mosul am. kii nga indi fii am na ci ay sëriñ yu ngeen jotoo dem. kii kay dafa sonn ci ay sëriñ yàgg na dem ci ay sëriñ yu bëree bëree bëree bëri affaire bi dafa xaw a yàgg ci moom moo tax ma man maa woo foofu ñu ne nañ ko yebal fii mu ñëw parce que gis naa Thierno mu ne di faj ay nit yoo xam ne comme feebar bu mu amee la ñu amee waaw loolu moo tax ma am yaakaar foofu moo tax ma yónnee ko mu ñëw fii pour ñu faj ko ci loolu. ñu ngi lay ziar. ñu ngi lay delloo ziar. bëggoon xam tur bi ak sant bi. man Omar Réméo Omar Seck. Eh, Omar eh, fan ngeen jóge ñun Gambie. ban dëkk ci Gambie. waaw ah, Mbuusu Mbaalo. ana Adama Barrow. mu si jàmm. defe naa démb barki démb mi ngi won Dakar. waaw ah, dégg naa si am de. Hmm. mais yéen a ngi gisee quand même. ah non gisee maanaam moom gisee wuñ ñu bëri de. Hmm. Hmm. kon moom jafe naa gisee noonu. Ah, def ma si yitte de xaw ndax jëf naa gisam déet waaye man de jëf naa gisuma ndax. Ah, yow doo politique. déedéet. xam nga Mama Kandé. waaw xam naa ko. sama xarit la. Hmm. dañuy jokkoo souvent ci sama mobile. waaw. Ah. ñu bëggoon xam lan mooy seen tànk fii ci kër gi. man nag sama baay ji laa fi àndal daanaka moo ma tegtal fii pour ñëw fi waaw maanaam xëy na man xamaguma waa ji naka la maanaam sama baay ji daal moom moo ko xam. mais tànk yi lan la fii ci kër gi. tànk yi sama rakk ji moo amee feebar. waaw léegi moo taxoon pour ñëw andi ko pour si garab. mas ngeen ñëw fii. déedéet man maa fi soog a ñëw nii tey. bi nga ñëwee noo gisee organisation kër gi. ah sant yàlla. ñu ngi faral di seetaan ay vidéo Thierno Moule Sow. ah de bariwul de. mais dégg nga sëriñ bi ay kiiraama yu muy def quand même. non maanaam man kay ba léegi xamaguma ko sax mu ne sama baay ji daal moom moo tegtal moo wax pour ma ñëw fi waaye man daanaka du may. moom nan la def ba xam fi. ah lii loolu moom wax dëgg yàlla ama si xam-xam boobu. ñu ngi lay ziar. daal di bëggoon xam tur bi ak sant bi ak euh, fan nga jóge Alioune Badara Sarr maa jóge Saint-Louis Ndar. yow da nga nuroog Yékini Junior. waaw am na ñu ma koy wax. ñaar comme ay seex. dama koy wax souvent quoi. fan nga jóge ci Saint-Louis. Gox Mbacc première bayal. Euh, xam nga ñoom yam taw. xam naa leen ah ay xam nga leen bu baax a baax. bon xam nii rek ah pas bu baax yooyu. nekkoon nañ Nouadhibou. waaw man si daan na nekk ndaw foofu. foofu laa leen xamee. waaw ah, daan nga nekk Nouadhibou. maa ngi nekkoon cité Sinim. ma nekkoon naa Carc. côté banque ba. <coughs> boo ah, wàccee ci banque bi ci suuf Carc. waaw ah, man na maa woon si tefes bi quoi côté tefes bi laa laa dëkkoon quoi. alors ñu buggoon xam lan mooy sa tànk fii ci kër gi. bon dama fi ñëwoon pour xool suma suma suma yër wérgu yaram suma santé quoi parce que souvent damay am métti bopp day jàpp suma bët yi damay sono de trop bon ma ne woon naa ñëw fii xool. Euh, noo def ba xamanteeg sëriñ bi ba xam fii. non c'est juste dama euh, damay seetaan c'est euh, à chaque fois vidéo yi quoi. par euh, YouTube quoi. kon li ngay faral di seetaan ay vidéo sëriñ bi. souvent souvent souvent souvent la ma koy seetaan. alors ci li ngay jot a seetaan lan nga ñu mën a wax ci sëriñ bi. bon si li ma jot gis quoi bon li muy def lu lu wér la quoi si gis-gis lu wér la bon yàgg naa ñëw fii mais comme. yaa nga ñëw fan. yàgg naa bëgg ñëw fii. Ah, mais nga ci bëgg ñëw fii. mais ba sama saa ñëw semaine passe ñëw naa fi mais jour boobu dafa xaw naaj et dama teeloon ñëw fii après si la demande tey laay soogaat am jot ñëw fii mais ñëwoon naa semaine wala passe ay côté le 3 xaw jotoo woon gisanteeg sëriñ bi. non damaa toog fi temps bu yàgg nag damaa ñëw fi ay 7 ba ay 4 heures après si la dellu man su ma amaatee jot dinaa ñëw quoi. mais toujours yaa ngi ndar. waaw mais damay ñëw fii parce que sama yaay fii la dëkk Dakar on finit souvent quoi. merci jërëjëf.